ba noppi ko nag dénk naa la yàlla mi nga xam ne lu ñu ko dénk du laatu dara du ci sikk loolu boo ko defee gone googee ba ba muy kàllafe dara du ko jot dara du ko lor moom gone ga ci boppam nag bu demee ba kàllafe nga wax ko ne ko defal ko sa bopp mooy jàngal albaru tur yàlla woowu juróom-yaari yoon tifli ci sa loxo raay ci sa jubbu bopp jubbu bopp nag koo xam ne miinu ko mën naa jàpp ne mooy kawar gi nga xam ne moo sax ci bopp bi te tiim jëbi wa mimma bokk na ci la nga xam ne yu xawadu def na léemule bi si ci moom asab yi gone maa la nga xam ne zakaraho tudd na ko cheikh naa sun sëñ sidiyal muxtaar radiallahu anhu wa ardahu anna wa jaxala naa yal nan def bi ci darajaam mi man nu bokk ci ña xam ne tawallaahu féete woon nañ ko warta daaw te ñu gërëm ko fii baadi tasaaniifihi ci lenn ci ay taalifam waxu moom moo di bismillahi arqiik min kulli shay'in yu'zik wallahu yashfiika wa yunjiik wa yajxalul barakata fiik ambatakallaahu nabaatan xasanan mu wax ko salaasa ñetti yoon intaha nee na bokk na ci li ñu léemule gone ñaar gi nga xam ne Sidi Muxtaar ci moom lañ ko jëlee ngay wax bisimilah turu yàlla alxiika laa lay mocce mi kul seen ci mépp mbir yu siika moom dana la lor wallahu yàlla yashfika yàlla saafara wayun jiika tam lay musal way te tamit def albarakata barka fii ka ci yow am bataka yàlla la saxal allahu yàlla nabaatan ak sax xasanan nga aji rafet booy ñaanal gone di ko léemul nga ko waxal loolu yetti yoon wa fii aydan wa amma tasxiilu nifaasi ndaal yombal wasin fa mimma bokk na nga xam ne yu saamal def na ko jëfandikoo maa la nga xam ne wéy nettaleef na ko xan ibni Abbas ñu ne ci ibnu Abbas radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xasura ndeem jafe na xal marati ci jigéen ja wilaadatuhaa juróom nga uxi sa jëleef inaa un ndab nazifun luy aju set fayuktabu te def bind fii ci moom ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa hashiyatan aw duhaha teg ca laqad kaana fi qasasihim xibratun li ulil albaab maa kaan hadisan yuftara walakin tasdiqa allazi bayna yadayhi wa tafsila kulli cheyin wa hudan wa rahmatan li qawmin yuminoon su ma yuxsalu topp def na ko raxas wa tusxaa te deefi nàndal almaratu jigéen ji min hu ci moom wa tandahu te muy wis moom jigéen ji min hu ci moom asfala batniha suuf biiram wa farjiha ak sawukaayam te ne kon suuf sawukaay boo defee wa farji moom day ataf ci batni boo defee wa farja xaa nag muy kon sawukaay wa day tàmbalee wax foofu nag lu aju ci yombal wasin maanaam lu aju ci yombal am doom mu ne ibnu xabbaas nee yonante bi daa wax ne jigéen bu tolloo ci wasin maanaam di am doom te mel ne génn doom ja dafa xaw a jafe dañuy wut ndablu set wecc bind ca ka annahum yawma yarawnaha ba ci aw duhaaha teg ca laqad kaana fii qasasihim xibra ba ci li qawmin yuminuun loolee ñu bind nag ñu raxas ko jox jigéen ja mu naan ca ba noppi nag gis ca la dale ca suuf biiram la dale ca ron biiram jëm ca sawukaay ba loolu dana yombal doom ja daldi génn waxanhu aydan annahu naka lay mbir moo di xaala waxoon na ne mara romboon na Isa Isa alayhi salaam bi baqaratin ci aw nag wa qad tarada te mbir moom galendu na wala wala duhaa doom ja fi batniha ci biiram ba fa xaalat mu ne yaa kalimatullah yow baatub yàlla bi xëy saa dañ koy wooye kalimatullah ndax ñàkk ñàkk am baay nga xam ne baatu kun amal rek mu daal di am wala bokk coobare yàlla rek moo ko daal di amal waaye daal amutoon bàyyi ko udduxu ñaanal allah yàlla an yu xal lisani mu li ma mi maa ci li nga xam ne anaaman fii nekk naa ci moom fa xaala xisaane yaa xaaliqan nafsi yow mi aji yow mi aji sàkk bakkan yaa xaaliqan nafsi yow mi aji sàkk bakkan min nafsi ci bakkan wa yaa muxrijan nafsi tey aji génne bakkan min nafsi ci bakkan wa yaa muxallisan nafsi tey aji xeetlee bakkan min nafsi ci bakkan xalis xaaya na nga xeetli naw yi xaala nee na faramat mu daal di sànni moom nawa bi wala di xaa ci doomam ja fa ida am ci lu may moom yaay ji muy nawi xaa imatun aji taxaw la tashammuhu di fóon doom ja xaala mu ne nag fa isa xasura dem jafe na alal marati ci jigéen wilaadatuhaa juróom nga faktub fu bind ko laxaa ñeel ko ba tey bokk na ci li ñuy defal kuy wasin te am doom nga jafe lii nga xam ne dañ koo nettali wax ne yonent yàlla xiisaa moo romboon aw nag muy am doom nag mel ni doom yi daa galendu ca biir ba génn ga jafe lool naw yi ci boppam moo waxanteeg xiisa alayhi ne ko yow baatub yàlla bi ñaanal yàlla mu xettali ma ci tiis yi nga xam ne ci laa nekk xiisa daal di wax suñu boroom ne ko yow mi nga xam ne yaay sàkke bakkan ci bakkan mel ne ni nga sàkke soxna xawaa ci sunu aadama nga xam ne nee nañu sunu maam xawaa yàlla nga ko sàkkee ci faaru yonante yàlla aadam mu ne ko yow mi nga xam ne yaay génnee bakkan ci bakkan mi ngi mel ni rekk ni bakkan di juddoo ci yaayam yow mi nga xam ne itam yaay xettalee bakkan ci bakkan yàlla maa ngi lay ñaan nga xettali nawile naka mu wax loolu nawa daal di am doom fa saasa tàmbalee fóon doom ja mu ne nag su jigéen dee tolloote ci am doom te am doom nga jaxe ko dañ ko bindal lii moo tàmbalee ci yaa xaaliqan nafsi nafsi ba ci baatub xallishaa wa min al xawaasi bokk na ci jagle yi isa xolliqa ndeem takkeef na zabadul baxri xoru géej xalaa fax yi dil ci luppub jigéen ja alyumna lupp bay ndeyjoor asraxat daldi gaaw al wilaadatu jur ga muy am nga doom ba tey nee nañu xoru géej buñ ko takkalee jigéen jay matu te luppum ndeyjoor ba mu daldi am doom fasaasa wa ida suxiqa ndem rukkeef na rukk mooyal ba mu nooy azanfaraanu sanfaraan wa xojji na te mooñeef ko wattu xisa te jàppeef minhu ci moom xadru lawsatin lu toll ne doomu dégéej xëy na bu dee ci lu nu wax lu tolloog xottu gerte waxul liqat te takkeef ko alal mbar ci jigéen ja taraxat mu daldi sànni almashimata kej la tub la muuroon doom ji moom li ñuy wax kecc muy càng ma jigéen ji am doom bu fekkee ne li ñuy wax kecc muy càng ma dafa génnut dañu bëgg mu génn dañu wut zafaraan rukk ko ba mu nooy ñu tooyal ko mel ne ku koy mooñ jël ci lu tolloog xottu doomu dégéej baa nga ne boog lu tolloog xottu gerte daal di koy takkal jigéen ja su boobaa loole di kecc ma mbaa nga ne càng ma dana daal di génn wa kazalika naka noone isa xulliqa ndem na ko ndem takkeef na ko rek xalaa inaasin xayli ci jigéeni fas ya du rek sax nit waaye fas sax buñ ko gisoon muy am doom tem jafe ko defalee loolu càng ma wala ñuy wax kecc daal di deñ waqaala waxoon na ba aduhum lenn ci ñoom ida ba ndéem bindeef na al wafqu wafqu ba ab tulaasi yi bi sulaasi yi waxul liqate takkeef ko almaratu ci jigéen ja min xaysu laa tusiibuhoo ci foo xam du ko jot najaasatun sobe wadaxat kon mu mucc sarixan ci lu gaaw bi isnillah ci namelu yàlla taxalaa kawe na wa tukk ta bu def na bind xablahoo ci ak jëkkam al basmalatu bismillahi rahmani rahim wa baxdahoo ci gannaawam it asalaatu julli xalaa rasulillahi ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag xaakasaani ki nii la ngay gis ci téere bi ba tey lañu waxoon ne mooy musallasul Ghazali yi suñu ko bindee te bind ca kaw bismillahi rahmaani bind ci suuf julli yonante bi wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbi wa sallam fekk wees nga xaatim boobu di musallasul xasaal yi waxoon nañ ko day def juróom-yenti kër ca kaw yetti kër ci suuf yetti kër ci dëgg yi ñu bind ca ba dun zaha jun waax mënees na koo bind ci araf yi arab yi noonu muy ba ta dun waax bu la neexee itam andi lim ba bii ma tiim ni tolloog moom moom dañoo andi lim bi te andi wuñ ba ta mbaa zahaj mbaa waax dañoo andi rek baalam tollool muy ñaar ak tàddaralam tollool mu juróom ak dàllam tollool muy ñeent noonu lañ ko indi rek ba xaatim mbat loolu la wax ne nag suñ ko bindee takkal ko jigéen ca lupp ba dañuy seet nag foo xam ne sobe du fa gaaw a agsi ca lupp ba ñu takkal ko ko moom jigéen ji matu su boobaa mu daal di am doom incha allah moo dee xool téere bi daal bind rek aw bind ci kaw xët yi bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidna muhammadin wa sallam te loolu kat mu ngi dellu ci xaatim bi wax léegi moom lañ bëggoon soo ko bindee nga def ca kawam bismillahi rahmaani rahim ci kaw xaatim ba def ci suuf nag wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam baa ni ma ko waxee woon léegi waaye nag ni ko bind ni yow mën naa am doo ko xam boo xoolee rek ni bind ci téere bi mën naa am doo xam li wax wa dakara al imaamu al jasoliyu rahimahullahu fi baadi musannafaatihi ci lenn ci ay taalifam ne ida atat ndem dikk na sabiyatun xale bu jigéen doomal ba bu àggul ci kàllafe ilam ra jëm ci jigéen fii xaalil wilaadati ku toll ci waxtu am doom wa xaalat te mu ko ne yaa fulaanatu yow diw mu jigéen mii anaa man saxiiratun gone gu jigéen gu ndaw laa walattu jur naa wa anaate man duunal ba looxi nekk naa di yées ak kàllafe wa antité yow nag lamtali di juróo su boobaa wadaxat mu daal di mucc doom ja sarixan ci lu gaaw bi idnillah ci nameelul yàlla taala kawe na intaha al imaamul jasoli yu ku siiw la wax na ci yenn taalifam ne su jigéen tolloo ci di wasin di matu di bëgg am doom su beneen xale bu jigéen ñëwee boo xam ne agul sax ci kàllafe moom gone rek la daal di yow daal jaaxal nga ma man may xale bu jigéen am doom yow na ngay magum jëmm nii amoo doom juróo su ko xale bu jigéen waxee loolu rek moom ma toll woon ci mat wa mu daal am doom fa saasa loolu de kiimtaan la waaye yàlla nag ay mbiram moom fu ne dana ko fa di feeñale wa fii nekk na ca aydan ba tey maa loo xam ne lafzuhu baatam mooy am maamaa ndaal la nga xam ne yokk yuqra'u def na ko jàng li daalati ñeel lu réer fa minhu bokk na ca suuratu yaasin saaru yaasin wa kazalika naka noonu suuratu qurayshin saaru quraysh kama zakarahu naka ma ko tuddee ahlul xawaas si lenn ci ñooñ jagle yi fii kutubihim ci seeni téere day tàmbalee wax nag boo amee lu réer looy ñaan ba mu feeñ bokk nga dal di gaaw jàng sóoratu yaasin ñaan ci yàlla feeñalal la ko wala nga jàng saaru xuraysh ba tey ci yàlla feeñalal la ko wa minhu bokk na ci an taqul nga wax yaa xafiisu xafiisu yàlla muy yow aji wattu ji yaa xafiisu bi atam marratin téeméeri yoon watis xasharata ak fukk juróom-ñeent marratan ci ay yoon wa taqaraw te ngay jàng yaa bunayyi innaha in taku mithqaalu xabbatin min xardal fa takun fi saxratin aw fi samaawaati aw fi ard yati biha allah nga jàng ko moom it dalika alxadada kama fi kitaabil fawaidi nam nekkee ci téereb alfawaid ba tey boo réerlee mën ngaa sikkar tur yàlla wi xafiisu ngay wax yaa ba muy téeméeri yoon ak fukki juróom-ñeent nga jàng yàbbu na yi innaha jooju ba ci yati bi allah lim bu toll noonu téeméer loolu boo réeralee mën nga koo def boroom kitaabul fawaid andi na ko wa fi manhaji saalikin nekk na ci téere bi tudd manhaji saalikin isa doaxa ndeem réer na min ko ci yow shay un dara aw arat wala nga bëgg añ yejjimaha bu boole allahu yàlla bay na sa diggante wa bay na insaanin ak diggante nit fuxul waxal ne yaa jaamixan naasi yow mi aji boole nit ñi li yow min fa ab bis boo xam ne laa rey ba amul benn sikki sàkk fii ci moom inna allah naka yàlla laa yuxlifu du war almihaada dëhël ba teg ca ijma yàlla na nga boole bay nii sama diggante wa bay na kaza ak diggante nangam fa inna allah naka yàlla taxalaa kawe na yajmaxu dana boole bay nag sa diggante wa bay na daalika shay ak diggante loole dara aw daalika insaani wala kookee nit boo dee xool ci manhaju saalikiin dafa wax ne soo amee lu réer mbaa am nit koo bëgg yàlla wanale la ak moom ngay wax ñaan gi tàmbalee ci yaa jaami xannaasi ba ci ijma bay nii wa bay na kaza su fekkee mënu ko wax ci arab nga wax ko ci làmmiñ wa nga man mooy yàlla yow mi nga xam ne yaay boole mboolem nit ñi bu bis pencee te loo diggee dara du ko toppal taseele maag lii nga xam ne moom laa réerale mbaa boog bu fekkee nit la nga ne ko yàlla taseele maag nit sàngam lii boo ko defee rek yàlla dal lay wan loolee réeroon bu dee nit koo xam ne da ngaa bëgg a gisee ak moom te gis ko jafe la it yàlla mën naa def nga daal di koy gis fa saasa wakkaana nekkoon na alkunti yu kunti yu radiyallahu di wax fi xijaabi dallati ci kiraayal lu réer allahumma yow buur bi yaa xaliya sharaf yow aji kawe ji tedd nga wa yaa waasi al kanafi te aji yaatu ak wàll rudda yàlla nga delloo xale naa ci nun maa la nga xam ne talifa sànku na bi xurmati salafi ci ormay dawal ba muy gaaya jiitu wa saalihil xalafi ak way baax yi way wuutu ña asalaf mooy ñu jiitu alxalaf mooy kuutaat mu ñeneen wutu ba fa ñooy jógee kuntiwu daraan def bu amee lu réer day wax ñaan gi ne yàlla yow boroom tedd nga ju kawe ji yow boroom wet gu yaatu gi ah yow boroom kaaraange lu yaatu li may nu delloo siwul loolee sànku ci ormay ña jiitu woon tey ñu baax ak ormay ñeneen wuutu tey ñu baax baabul li ab bunt la fii zikri ahadisa ci tudd ay addis ma asoorat ñu di nettali an rasulillah jële ci yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam day bëgg wax nag ay addis yoo xam ne nañ ko li jële ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa wa sallam wa fii kitaabin nuurayni nekk na ci téeréb an nuurayni maa loo xam ne lafzuhu baatam mooy fa fi saxiixayni nekk na ci ñaari saxiixu ya xan abi hurayra te jële ci abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi naka yonante yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam xaala waxoon na ne man xaala ku wax laa ilaha illa waxdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin ci ab bés mi kon mu nekk la xooñeel ko ka xaddali xashri riqaabin mel nekkem fukki baati wa kutibat te bindeef la ñal ko mi atu xasanatin téeméeri yiw wa mu xayat te fareef xan walis ko mi atu say atin téeméeri ñaawteef wa kaanat te mu nekk xirsan di kaaraange la ñal ko mina seytaan seytaane fi yow mi ci bisam ba zalika boobee xataa yum ba muy gont wala mu ati te di kéewut axadun kenn bi af dala ci lu mi maa la nga xam ne jaa dikke ne bi ci moom illaa rajulun waay xamela kook jëf na aktar lu ëpp minhu ci moom boo dee xool ci saxiixu muslim ak saxiixul buxaari wax nañ fa ne abu hurayra nee na yonante bi moo waxan ne ku wax laa ilaha illallah ba ci wax waxalaa ko seen xadir bis bu mu ko mën di waxee su ko waxee téeméeri yoon rek dana am tuyaaba ji toll ne goreeloon fukki jaam daañu ko bindal téeméeri yiw faral ko téeméeri ñaawteef te it diiru bis ba mu ko defee yàlla dana ko musal ci seytaane te ku defut lu toll lim def rekk moo la gën ku def lu ëpp lim def nag mën na koo gën waaye daal ku defut lu ëpp lim def moom gënoo ko wa fiihima nekk na ñoom ñaar aydan ba tey ani nabi jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam annahu naka moom xaala man xaala ku wax subhanallahi wa bi mi ata marratin téeméeri yoon yow man ci ab bis xuttat kon sippeef an walis ko xataayaahu ay ñaawteefam wa in ak doonte nekkoon nañu mitla zabadil baxri di tol ne tuuritum géej ba tey boo dee xool saxiixu muslim ak saxiixul buxaari yi ñaar téere yooyu ñoo gën wér ci téere addis yi an nañ ca ñu ne yonante bi nee woon ku wax subhanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon ak gis boo ko waxee rek ñu wàcceel la sa bàkkaar yépp lu ñu bari bari ba toll ne sax tuuritum géej wa fihi nekk na ci ñoom ñaar an abi Musa al ashari radiyallahu anhu anna annahu naka moom abu Musa al ashari xaala wax na ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ndax duma leen tegtal xalaa kansin ci am koom min kunuusil jànnati ci koomi ajjana xultu ma ne ko balaa axakay yaa rasulallah yow yonante yàlla bi xaala mu ne ma xul neel laa xawla amul benn xeetu pexe buy tee mooy wala xuwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illaa billahi ndara muy nekk ci yàlla alxali ki aji kawe alxazim kay aji màgg yonante bi dane woon ndax duma leen tegtal koom mu rëy rëy moo xam ne ci koomi ajjana la bokk ñu nekk axakay mu ne da wax laa hawla wala quwata illa billahil aliyul azim donte benn yoon la itam xamal ne koom mu réelam bokk ci koom yi ajjana wa fii ma nekk na ci ñaari saxiixu yooyu an abi hurayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa kalimataani lii day ñaari baat la xafiifataani yu aji woyof xaalal lisaani ci làmmiñ saqilataan te aji diis fil misaani ci balaas ba ñuy peesee jëf yiw yi wa xabibataani tey ñaari baat yu ñu sopp ila rahmaani jëm ci aji yërëme ji mooy nag subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim yonte bi dane woon am na ñaari baat ñoo xam ne day boo koy wax ci làmmiñ day yomb lool waay bu ñu ko tegee ci balaas ba ñuy peesee jëfi jaam yi day dana diis lool tey ñaari baat la yàlla sopp mooy subhanallahi wa bihamdihi benn baat la subhanallahil xasim muy baatu ñaareel bi wa fi saxiixi muslimin an abi hurayrata radiallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la an aqoola ba ma waxee ne subhaanallaahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar ahabu moo gën sopp ilee jëme ci man maa ci lépp loo xam ne talaxat fenk na xale yi ci moom asam su jant bi boo dee xool saxiixu muslim nett nañ fa jële ci abu hurayra mu ne yonante bi nee na ma wax subhanallah walhamdulillah walla ilaha illallah wallahu akbar moo ma gënal àdduna ak li ci biiram lépp loo xam ne bu jant bi fenkee tiim ko leeral ko la muy bari bari wax lii benn yoon moo ma gënal am loola lépp lépp wa fi nekk na ci xan abi sumrata ibni jundubun wala jundab qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabul kalaami gën jaa soppi wax arbahun ñeent la mooy subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala yaduruka du la lor nag bi ay hinna ci ku ci ñoom badata nga jëkkee boo dee xool sax yu muslim abu sumra dafa nettali ne yonante bi day nee woon ñeenti baat yi moom la yàlla gën a sopp ci mboolem baat yi subhanallah muy benn walhamdulillah muy ñaar wala ilaha illallah muy ñett wallahu akbar muy ñeent mu ne nag noo ko tegale rek baax na boo jëkkee ak boo mujj rek baax na wa fi saxiixi albuxaari yi xan shaddaad ibni awsin radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sayidul istixfaari sangub sàkku njëggal mooy allahumma yow buur bi anta yow bi yaay sama boroom laa ilaha amul benn buur illaa anta ndara yow xalaqta nii bind nga ma wa anaate man xabduka maay sab jaam wa anaate man xalaa xahdika maa ngi nekk ci sa kóolëre wa waadik wa waadika ak sab dëxal mastataxtu lu ma man wa ahondutu maa ngi musli bi ko ci yow min sharri ma ci ayu li nga xam ne sanaatu def naa ko aboo danaa dellu lakk jëm si ci yow bi ni amati ko ci sa xéewal xàlla ci man wa aboo te may del si ci yaw bi bi ci sama bàkkaar faxfir yàlla na nga jéggal lii ñeel ma fa innahu naka la mbir di laa yaxfiru du jéggale ak zunuba bàkkaar ya illaa anta ndara yow man xaalaxaa ku ko wax mina naxaari ci bëccëg moo xinan mbir mi aji wóolu bi xaa ci moom fa maata te mu faatu fa huwa moom min ahlil jannati bokk na ci waa ajana wa man xaalaxaa ku ko wax mina layli ci guddi moo xi naan mbir mi aj wóolu bi xaa ci moom ba tey foofu moom min ahlil jannati bokk na ci waa ajana allahuma anta rabbi lu siiw a siiw la dañ koy tuddee sayyidul istixfaar te yonante bi moo ko ko tuddee ndax ne dane sangub lépp li ñuy wax di ci sàkku njëgal daal mooy ñaan gi mooy yàlla yaay saa boroom yow rek ay buur yaa ma sàkk may sab jaam te it danaa jàpp sa wëllërate mooy gëm ne yow rek ay buur jaamu la itam kem sama kàttan maa ngi ñaan na nga musal ma ci ayu li may def tamuy lu bon a bon maa ngi delsi ci yow di sant ci xéewal yi ma xéewal di delsi ci yow di tuubal bàkkaar yi nga xam ne moom laay def di tooñ saa bopp yàlla nag ma jéggal ndax yow rek yaa mën a jéggale ku wax ñaan googu ci bëccëg bi te wóolu ko gëm ko maanaam xam li mu teg ci jàppe ko noonu gëme ko noonu boo faatoo ci bëccëg boobee xamal ne bokk nga ci waa ajana boo ko waxee ci guddi gi noonu boo faatoo ci guddi ga daal dem ajana wa fi saxiixay nekk na ci ñaari saxiixu ya an abi xoreyrata radiallahu anhu innal fuqaraa naka way ñàkk ña minal muhaajirina ci way gàddaay ñi ataw dikkaloon nañu rasulallah yonante yàlla bi sallallahu alayhi wa ñu ne ko yaa rasulallahi ba deme na ahlu dusóori ñooñ alal yu bari ya bil ujóori ci yool ya wa darajaat ak daraja ya alhamlaa yi di way kawe wa naayimi ak xéewal ga yu salloona danañu julli kama nu salli naka nuy jullee waaye soo moona te ñuy woor kama nasoomu naka nuy woore walahum te ñeel na leen fudulun ay ndes min amwaalihim ci seeni alal yaxujjoona danañu aje bihaa ca ñoom alal yooyee wa yaatamiroona te ñuy xumra wa yujaahidoona te ñuy jihaad wa yatasaddaqoona te ñuy saraxe fa qaala mu ne leen alaa uxallimukum ndax duma leen xamal shay'an dara tudrikoona loolu da ngeen jote bihi ci moom man képp koo xam ne sabaqakum jiitu woon na leen wa tasbiqoona te da ngeen rawe bi ci moom man ka nga xam ne baadakum nekk na seen gannaaw wala yakunu te du nekk ahadun kenn afdala di gën minkum ci yéen illaa man dare koo xam ne sanaxa def na la ma sanaatum kem li ngeen def xaaloo ñu ne ko balaa axakay yaa rasulallaahi yow yonent yàlla bi xaala mu ne sab tusabbixoona da ngeen di sàbbaal wa taxmadoona da ngeen di sant watu kabbiroona te ngeen di kàbbar allah yàlla xalfa kulli salaatin ci gannaaw gépp julli talaasan ñetti yoon wa talaasiina ak fanweer ne addis bi ñëw na ca saxiixu muslim ak saxiixul buxaari yi abu hurayra moo ko nett li ne ña gàddaayoon bàyyi ko màkka ñëw madina te defan ñu néewle maanaam ñàkk koom àdduna dañoo ñëwoon ci yonante bi ne ko nun day ñi yàlla defal alal ju bari raw nañu ba noppi yóbbu nañu tuyaaba ya ak daraja yu kawe ya ak xéewalu ëllëg ga ndax ñoom bu ñu dee julli ñoom itam ñuy julli ne nun bu ñu dee woor ñuy woor ne nun nga xam ne kon duñ leen ëppale tuyaabay julli mbaa tuyaabay koor te ñoom nag alal yi leen yàlla jox dañ cay faj seeni ajo muy des ñu mën caa aji mën caa xumra ji mën caa jihaat ci yoonu yàlla mën caa saraxa itam ngir yàlla te nun nag loolu mënuñu ko yonente bi ne leen téema leen jàngal loo xam ne su ngeen ko xamee te def ko daldi jot ku leen rawoon maanaam daal bu ko defee koo xam ne yéen a ko rawoon yéen du leen mën a jotati te it ku leen rawoon da ngeen ko jot nga xam ne daal ku defut lu mel ne li ngeen def rek yéen a koy gën mënta fexe sax ba mel ne yéen nga xam ne kon bu ngeen defee lii daal di gën képp ku ko defut ku ko def ne yéen nag daal di am la ngeen am rek nag daal di yem ak